sunu maam seen seen yow biram jeey kay ma xësul seen waay doxa kisal bidda brata ay bidda brata kay bidda brata pax pin pin saba ramba cum moo ma ne ma caatu neen kenn du sa ba muy xol ni boole rende ba ginnaaw kenn du ko lekk ndax mii di sama jabar jëma woo may ma ab di ma gànnaaru ku ma woo teg ma si gaas ne ma toogal ma di oley temps bi temps oh. si Ngom man fu ma mosaan yuuxu ku ko dégg daal ne déggal loolu tey mënutuma sa yuuxu yuuxu ba egg te man sama maam bokkoon na si géwél yi daa topp si ginnaaw la joor di ko taggal ay maamam naa ko monsieur Issa Dieye Issa Dieye Fatim Penda ak la bëggul laaj ci safar gu metti gi si ngoom ku la joo moo daal taxu si penc daal ne sa nongo baa mu tubb ak dooleem nga jër jóob jóoba jubba borom ndakaaru jël jóob borom jël jóob sàngomaar moo dama ne la jël njaatee jël njaatee jaan nga mu loxo du ko dindi rëkk rey na si ñeen waaye loxo ma du ca weele leen di jaay wooy ndi jaay singo ma ne ku bëgg yóot ndëgg dëgër ku bëgg ràbb tàlli ku bëgg lu ñuus ba nga duul da ngay tooñ ko la ma ndi jaay si ngoom ndax du jaaru nen du maaj wékk mbootu tajul ndaa gileem du sol pantalon bukki bu dee guddi sarawul daa làqatu te ku bëgg xaritoo golo da ngay jàng yéeg ba mën ko yaay yaay ndi jaay yaa fi mën yaa fi mën heure boo xeexee ñu ne la say daal dañ lay jaay di la nag mu ñëw fii. looloo dal ko mënuñoo. dëgg la ñëw si kër gi ñu jël ko nekk yow yaay suñu gardien dégg surveiller mu yaakaar ne moo aar dina toog tiire. que yow lu nekk mu teg ni ko si kër gi ñun xamuñu. maa juum ku dul juum amul. sama rakk di ñëw taal kaar la badu. mën na nekk yow xamoo loo ah. Hmm, da ngaa juumoon. teg si ordre. Hmm. may bu ma doon may que yow mi génnee fële di ñëw si. saal bi jeex na sa buntu kër ga lay toog di garder xaj yi su may génnee ko këm mu ne maa ma ko ouvre la porte ma génn ma ko frappé la ko ni maa la a xamadi foofu ma may xamadi xamadi woowu yaay Kamel yow mhm. ko neex lay def ci kër gi di buur di bum mhm. toog naa ak sama jabar ci saal bi Kamel yow yow def li muy def ba pare xool ma ma xool ko mu ne mu jug génn saal bi bëgg koo giñ mel ne man dañ na waaye nag tey si goon sama xol daa sedd jotaay bi ñu am ma ak yow mosuma kaa am ak si ba nekkee ci kër gi ba mm-hmm. léegi. Mm-hmm. moo tax tey ma dama ma waayal. dama naa la. faryadaate faryadaate. fooyandoo bi la waxtaane doo fa ñaar. yàlla say basan lal say basan lal say basan. biram maak sa pend joor yaa moom daal liggéey kontaan naa de. kontaan na maa nëbb sa bopp. yàlla di kontaan damaa kon je suis fier de toi. Chico lii nga way képp ku nga dégg dina ko mën a reprendre du am lenn lu si déranger. mais am na benn booy bu naan dip ñëw na fi naan. cicatrice di daan di cicatrice man maa ngi nii am naa cicatrice te te waxuma ko. amul cicatrice ñëw ni que da ngay am cicatrice nangam cicatrice. di kenn daw ko fii kenn daw ko déglu. xale jigéen amuñu jotu jël seen téléphone di sinap ay cicatrice. Moussa de way la way. nga ba ma woon. gis nga ba ma ndeysaan nga ba ma woon. na son moo leen def booy bu dëkk Géejawaay. kan. ngaaka Belende ngaaka. léegi naan ca la. ba muy doog a ñëw la doonoon ngaaka. di woy di dinu saaga te xamul ne man dama ko estimé mën ngaaka. mag laa mais moom rek lay déglu. lu muy sa la moo tax mu ni saaga. même si man dama sari dama lay xarafal jongal la ñu la si kër fokk eh! lu muy saaga. lu muy saaga di jaay réew. ngaaka mu dafa réew de. ah dafa réew ba toog. <laughs> ma woo ko téléphone ne koo fi saagati dinaa la ñuus ba nga maa ko woo téléphone wax ko moo yow xam nga yow lu ma wax sañ naa ko nekk dag noo dàq saak yow wax da foog yow ngaa ko maa ko wax ngaa ko mu daal di ne kii xam naa ko dof la ma mu saale wooy bi génne wooy bu oyof naan tàccuma tàccuma tàccuma tàccuma béjala tàccuma tàccuma tàccuma tàccuma béjala àdduna fasu naaru góor la daal ku fowee sa ndaw ñu la ba nga watee si kim ca nga weesu mbootu war a xalaat dimbali sa baay ca kër ga àdduna metti naay metti na waaw waaw waaye ñu nit suñ télé bii war nañ cey jug télé boo xamante ne moom te kenn du ci kenn amul télé bi amul benn benn benn dem am xoolal xoolal liiral liiral liiral dama woon boobu sax moo waale xale yi ñu astu ana mami Bousso Bousso njàkkare de ak yaakaar gu tas dina jàpp nit ba mu foofu moom ma dootul wax naka man ay cëram dootul jëf te jigéen sagam daf ko sàngaale si biir ko amul wéeruwaay bu ma wax la war na laa yomb waaye ko gis foo wéeru daan war la joom yéen ñii ñëpp samay jarbaat bi benn doom képp la ma yàlla may muy mu samay doom ma teel a tàkkali ko ak yaayam lool ma jël ko indi ko ci kër gi bëgguma mu mar bëgguma mu rafle lu mu bëgg suba ba jant bi so si loolu laay nekk te lii dal ko bu wax dëgg neexee rek yàlla si asu mi laa gënoon a yaakaare ndax lu nekk yàq naa ko si kër gi kàddu gu ñaaw gu nekk wax naa ko asu mi wax na dëgg yéene néeg la borom a say fana ndax lu ma doom seetu si asu yëpp buso bi moom ko yóbbee bu sa bu demee ba di ëmb di ma ko nëbb am naa mbetteel bu rëy si moom te bu yemoon si néeg bi sax mu yomba saafara mais daa egg ba sa pénc ma téléphone bii si ngom yor nataal bu saa si nekk ak jëf ñu ñaaw ju mu jëf àdduna wëngal këpp jot ko bër si ngoom jot ko ba ñëw di ma ko jottali am na nan lay siggee di xool samay nawle ana nan lay si siggee di xool samay mbokk ñoo xam ne neewoon na ma lii dali xale bi ëllëg yow yàq ko yóbbee te bés bu yàlla sàkk daaw ma jug si noppam yi di ko xalaatal lu rafet di ko waxal lu rafet di ko digal képp nag laa mën ndax ku ne xam na ni ndigal caabi la bu ëppee du tijji bu yéesee du tëj te luy naaw waat naa ni ngont te nga ma gàcce di busu ginnaaw nag li am am na ba pare te lu tilim ñu sànni dara dootul seen waaye yéenay sama seede bis ni ki tey

maa ngi jégalu sax ndax amaana ni bi maa fi gën a doon xale mais di fi am tey bett na ma lool wante dan naan lu musul am ci kër ba am fa war na xoolaat suñu bopp baadu gan gi. yow de asu dangaa sàq mi sama lanc parce que nit moom bu lay indil jàppal ni moo lay yóbbul surtout njuufaay mii mooy ñëw ci kër gi moom moo fiy intrigue bi ñun ñëpp ñoo bokk suñu deret xam nga ni fii dara mu du Bousso dara waru ko mën a dal te ñun yëguñu ko ba njuufaay mii duñu ko njëkk a yëg ça veut dire loxoom setu ci man daa wax naa leen li ma leen di wax nag pare naa si. njuufaay. li xew ci kër gi du man maa la koy nettali ñun ñoo ko gisandoo situation bi compliqué na te fi mu toll nii atmosphère bi changé na donc dina diis ci man torop du dara du xel bu ñaaw du du lenn loo xamante ne nii dama ko am ci yow mais juste je pense que ni c'est mieux que je reste chez toi jusqu'à nouvel ordre man damay def ay yii damay def ay yii. damay def yii moo tax moo tax mu am. ah c'est bon waaw c'est bon baax na. waaw loolu moo tax mu fekk xeetu boobu noonu. dégg nga. Bousso.